Cheikh nuyu naa la. waaw fay naa la. naa si lépp kañ. ah comme lu may waaje sama combat rek. waaw comme dab rek incha allah. ñaata combat. ah. ñaata combat. bi est-ce que du waaw. waaw 6 wala daal xaw ma fu ma juumul. waaw. lépp laa si séntu lépp loo xalaat séntu naa ko si. waaw damay bëre damay xeex. foo nekk dina fay fekk. waaw la loolu laa si sax lool laa si bëgg te loolooy am incha allah waaw. man aw ma lu ma koy wax du li koy ñaanal rek mu ñëw bés ba ñu defal ko comme ni ñu koy defalee yeneen yeneen moromam yi rek incha allah. ah. wala séeréer xoo yaa den rek comme baba ne ah, dema den ga comme ba den a ref den dam ten ñoƴor andun fop jon waar falya ɓasul ɓasar jogan a munde fop dal limanga rek juum kam a juum ngaƴor tuume xooya fu jinda jinda tuume xooya den i de ndamna combat fane ma den ga o ɓinun i o ndan den o den tena ten jow combat fa ndongolo i woya we sirmang fop waaw wa simol leng dal dena fop i wa simol leng képp ku wa ga rek we laya o rek mais o yaam fane o dam ten a paax a waaw ok waaw Aziz ñu lay fay. amuñu. sant bu baax a baax. neneen. waaw làmb jee ko laaj. làmb jee ko laaj. ginnaaw ma sant yàlla ju sëndu sant sama ñaari waajur. maa ngi nii ma si sànn di wax làmb yi li mu nit ñi jàppale yàlla jàppale di woo waa Grand Médine baax a baax ak képp kuy bëggee Ndongo Lo fu mu nekk mu ñu ma ñaan taxaw ma leen ñuy sonn si taxaw ma leen maa ngi si combat bi. séntu nañ si ndongo beneen ndongo. waaw Ndongo Lo ba moo fi nekk mais ak Père Birame Ndiaye loolu la quoi. bu sax xam-xam. Ndongo Lo xam-xam waaw. koo xam ne mbër la. bërekat simple la. yow ndongo ñëpp xam ne mbëru arène nga sax xeex kat nga moom xeex bi bëri. waaw champion la. champion kenn ku ne table. ndaanaan la mais yéen a ngi may ci combat bi yal nañu yàlla may ndam sans jërëjëf mbay Yékini di ñaan di ñaari mbër yoo xamante ni bu ñu feccee mu neex bu ñu xeexee mu tàng jër bu nu meree kontaan li ma ci gën a neex nag mooy Mbaye Yékini dafa jël boppam dénk ko Serigne Modou ñaa le promoteur des alternances de l'action sociale de la décentralisation et des jeunes espoirs ma ñëw ma ñëw mu jëlaat boppam xool ku ñu wax Serigne Fallou Ndiaye di promoteur boo xamante ni prouvé na jëlaat boppam jël ko dénk ko ku ñuy wax Yanda Diop jëlaat boppam dénk ko ku wax Idaali Ñing kon daal mbay ey mbay daal delloo na mbattu ca la ndax bala may jox alaaj saale bii ku jël ndongolo ndongolo nga xamante ni bëri na ak champion yëpp maa bëreeg général maa bëreeg maa bëre maa bëre maa bëre maa bëre kooku ndongo loola waaye ku muy dajal triple champion d'Afrique bi Cheikh ñaa ndi ki ndànk dama loolu combat bi commentaire na boppam mbay ana mbay mbay marqué nga sa empreinte un an d'existence kese macha allah marqué nga ci làmb ji kon yàlla na la yàlla dafa jàmm waaye nag dama taxaw ak sama rak te it nee na ma damaa jëlee la mbëri waaye lamb ja bisu maa ko assuré Maguette Seye ngi nii moo ko tey muy dëgg ku ko sa assuré ak su dëgg waaw kon alaaji Sall bige pour géwél ah dama ni kii nag mooy serveur bi bu ñu wax mbay Yékini xale yi ba leen fi tey yor tey ji licence promoteur kii la ñu wóolu muy muy mbay te sëñ Modou ngi nii nee na mbay Yékini daf ko nee na sëñ Modou Niang man Mbaye Yékini mooy sama idole nee na mun nga yóbbu ko ba si moom nee na nga jël jàpp ci loxo Mbaye Yékini dugal ko taxi ewaay eh sam yóbbu ko ba kër sëñ Modou ni ko xale bii yow lay roy ci sa jom ci sa taalibe bëgg sa njaboot am dignité bëgg a dem ci Ablaye Wade yow lay roy moo tax ngay du ko si moom jërëjëf Mbaye Yékini saala bi nga jërëjëf alaaj Pambaay jërëjëf Maguette Seye Sénat assurance jërëjëf pour Gueweul TV jërëjëf Demba si ak naanaan yi fi nekk yëpp di wax ni Serigne Modou Niang ñun amuñu fayam tey champion yi ñuy tudd ci làmb yëpp Serigne Modou Niang moo leen génne Serigne Modou Niang li ma investir ci làmb buñ ko ko delloo waatoon bu doon multi multi milliardaire waaye nag dara jaralu ko lu dul bëgg réewam bëgg jeunesse am tey jii mbër mi nga dawal 4-4 tabax air plus 4 kenn may ko lool ginnaaw yàlla sunu borom kuru Serigne du ñaam yi kon Serigne Modou Sénégal daf la dee waral delloo njukkal li ma naan Sénégal mënuñu kuy dund néew la nu mën balaa ñoo teral nit ki ñu naan ak a baaxoon ci bi muy dund nii. ci làmb Serigne Modou war nañ koo décorer war nañ koo tuddee lu rëy ci làmb ndax li mu dee am lépp delloo na ko ci làmb lu mu jëlee ci réew mi ci làmb la ko delloo en tout cas dañuy wax ñaari mbër yi ndongo sa yaram tàng na Cheikh seen yaram tàng na waaye xaar leen jours yi lépp lu ngeen di waxante ak lu ngeen di jëfante bàyyi leen ba bis bi tey tiir la te àddunaa ngi leen di seetaan bis ba nag bis la boo xam ne laaf fekk soit bel ma leen di ñaan yéen ñëpp yàlla yàlla defal jàmm alaaj Pambaay di sant di la jërëjëf ay ayca kon nag xam naa ni danañ jox buur géwël ci une minute su ko defee ñu dem présenté ñaari mbër yi bu ñu mënee xaar waaye ñu ngi ñaan arbitre ñu may ñu une minute rek. jërëjëf Alaaji Pambaay yaakaar naa ni bu saala bégee yëkkatee ay kàddu rek doyoon na waaye sëñ Modou ñaa nag ndawal guddi la ku làmb daj ko danga naan man rek la mbay yi kini maa ngi laa wax ni dégg nga sa bopp ku mot a dénk nga sa bopp góor dénk nga sa bopp taalibe dénk nga koo xam ne sa bopp fam nekkoon fa la nekk ba léegi muy sañ Modou Niang yàgg a jàppale làmb lool tey jii saa bu xoolee ci kaw mu fit mu jël yóbbu waaye kon nag tey jii ki nga dénk sa bopp juumoo te yaakaar naa ni mbay ki ni juumoo jërëjëf Pa Mbaye ñaari mbëri nag muy Cheikh Tidiane ak Ndongolo ñaari champion nga boole jërëjëf sëñ Modou Niang en bas en kon nag ñu joxe ca rendez-vous le 26 juin dama ni benn promoteur ci biir promoteur yi benn bés ci biir bés yi ñaari mbër ci biir mbër yi kon le 26 juin fii ci arène nationale na woon fa woon rek ci kattanu yàlla yàlla si yàlla yóbbu jërëjëf Ndongo Lo jërëjëf Cheikh Tidiane Niang